sant waa ñi teew fii ñëpp rek ci turu Serigne Bass ñi xam ne mooy kilifa comité d'organisation Grand Magal Touba cant yooyu nag ñi ci jiital euh, autorité administrative yi euh, ak maire mi nga xam ne moo nu dalal fii waaye moom mu mel ne moom moo nekk ci digg màggal gi sant nañ leen ci turu Sëriñ Bas di di eh, beesalaat sunu engagement di beesalaat sunu engagement bu baax sunu pas-pas ak sunu dogu ak ñi mu àndal ñëpp ci ginnaawam fas yéene ànd ak yéen màggal gi di wax ne tàllal nañ leen sunuy loxo niñ ko baaxoo woon di def waaye nag mu doon tàllal loxo bu ànd ak rafet njott gu wér wér rafet njott gi it li ko li ko wundu mënees na ko wax euh, ndax dañu gis ay nit ñoo xam ne dañu yem ak ñun engagement ci jafe-jafe dëkk bi waaye ay nit yu yem ak engagement ñun ak ñun ci yitte màggal gi mu mel ne jafe-jafe dëkk bi nga xam ne saa su ne moom la dëkk bi di dund ci lu dul màggal jafe-jafe yooyu mooy continuer di gën a metti su màggal gi ñëwee kon mu mel ne saafara jafe-jafe yi balaa màggal mooy waajal màggal gi ci euh, euh, gàllankoor yooyu loolu nag yàlla def na ñu ci ànd ak ay nit jafe-jafe yi lu ci gënoon na ràññiku bokk na ci ndox bokk na ci sécurité bokk na ci électricité bokk na ci wérgu yaram bokk na ci bokk na ci yu baree baree bari yu ñu mënta lim waaye ñuy wax rek ne secteur yooyu benn bu ci ne am nañ ci ay collab ak ñoom collab ci ko yor ay collaboration bu mat sëkk moo xam ne jàpp nañu suñ ko wéyalee ba màggal gi ñëw yàlla mën naa def lu bari dana woyof yàlla mën naa def njàqare yu bari suñ borom teggil na ko loolu nag la ñuy ñaan ah, loolu nag lépp ndimmalul sëriñ bi la ndax sëriñ bi moo dugal kàddoom ci lu bari ci yu mel noonu ba tax na mu ñemeloo ñi ko yor waaye it ñi kilifa yi it yëg ne jaaxle gi egg na ci sëñ bi ba sëñ bi jëlal ko bopp ah sëñ Basu nag wax ne mi ngi rafet njort bu baax te yaakaar rek ne taxawaayu daaw yi ci contexte bi danu jàngal ren ndax ñu ngi wax troisième vague ci pandémie bi am troisième vague bi bu fekkente ne it ñaanuñu yàlla sax mu wéy bu boobu waaye nag am nañ expérience bu ndaw ci par rapport ak daaw expérience boobu nag defe naa suñu gënee yokk sunu pas-pas yokk sunu moyen waaye gën a dëgëral suñu jokkoo ak jokkale bi jokkalante bi defe nañ mën naa euh, gën yokk résultat yi ñu amoon daaw te résultat yi ñu amoon daaw nag ñëpp gis nañ ko àdduna bépp xam nañ ko même presse internationale bi sax wax na ko kon loolu lu wér la lu tegu ci xam-xam la lu ñuy wax loolu nag tax na li fekk ñëwagut xamugunu nu ñu ciy doxee ak lan moo ci doon ndigal lay wéy waaye nag sunu warteef ci ndigalu sëriñ bi ci njiitul sëriñ Bas mooy xam nañ ne màggal gi dina ñëw incha allah xam nañ ni ne mu tar dana fekk ay nit waaye xam nañ ni ay nit koy waajal ci ñun ñoo ko war a waaj kon dañ ko waajal nañ ko daan waajale incha allah loolu daal lañ amoon ci gàttal euh, luñ doon dokk la rek ci ndigalu sëriñ bi. di wax ne moom mi ngi ñaan gërëm na jataay mi ngi leen di ñaanal eh, sàkku it julli yëpp ñaan sàkku it Sénégal yëpp ñaan waaye rawatina murit yi te ñaan moom mooy sunu lépp moom lañu am ñaan it mën na lu ne la amoon daaw kenn mësu ko woon foog lu ko raw nag ci jàmm ak ci ndam yàlla na ko yàlla defal ci dara yi Serigne Touba sant ñëpp